bisimila daleen ak jàmm ci chaîne bi ngeen taamul seen bopp talaatab tey ji fukki fan ñaar weeru mars atum 2024 yéenekaay yu bari ñi xëy ci dàqum élection gi ñu bari ragal le réveil ne ñooy ay ndax Macky ki liet naawam ña ngay togg loo xam ne bu nu ko yekkee élection présidentielle bi ci boppam la ñuy dàq journal ba jox kàddu kuy dëggal loola di professeur Mary Teuw Niane may fësal palang ya Macky Sall lal ngir dàq élection présidentielle bi pr Mary Teuw Niane ne coup d'état bi Macky waaj léegi tey mu sotti mu ni Macky bi te amut candidat njiital MTN candidat wam mënta gañe kenn président putschiste ni mu koy woowee it Mary Teuw leer na ko ni Diomaye Faye buñ demee moom élection da leen di gañe lii quotidien ne li leer daal mooy ñu ngi dox jëm ci beneen dàqub élection yéene kaay bi joxoñ recours ba waa parti démocratique sénégalais seeni ñooñ yóbbu démb ca cour suprême yéene kaay ba ne cour suprême daa mel ni jox na bopp recours front démocratique pour une élection inclusive 17 mars ba jàpp ndoorteelu campagne électorale bi yéenekaay bi ne ñaari recours yooyu yëpp ku mayul spoliés ya daanu ca am ndam point actu ne ñoom spoliés yaakaar gu mujj Mame Mbaye Niang ministre bi ñu dénk wàllu tourisme ak sport mel ni kuy jox dëgg xaat spoliés yooyu ne conseil constitutionnel dafa jéggi ay sañ-sañam Mamadou Diop Decroix naan loolaa tax élection yi kenn waru caa dem rek ngir dem élection dañoo war a teg yëf yi ci yoon Aly Ngouille Ndiaye a a yoon expert électoral bi di njëkk si laaj ca booba lépp di laaj naka la cour suprême mën a jéggee conseil constitutionnel ci dogal yu mu jël ba nuppi te ñu ne yooyale dogal dafay tënk ñëpp le la ñu libération di bi ne ca dikkee ba nuppi jox na kàddu Seydina Oumar Touré mu bokk ci coalition Diomaye président mu ne cour suprême amul lenn lu mu mën ci processus électoral bi yéenekaay bi jamono ja ñuy wax waxi cour suprême googa nag ca la ñu yëglee ne OFNAC convoqué na premier ministre ba woon Amadou Ba ak ñaari juge yañ taqaloon ca conseil constitutionnel waaye loola mujjee mel ni ay naxee mbaay ndax gannaaw ga OFNAC daf koo weddi ba set l'observateur ne waaye bu weesoo loola diggante Macky ak Amadou Ba moom yéene cabinet dara doxatu fa journal bay indi ay leeral ci lëndëm lëndëm yi am seen diggante la ñuy ŋàññee Amadou Ba ak président Macky nii muy doxalee yéene kaay bi tuddee ko démarche suicidaire Seydou Gueye ak Mayel Thiam ca boobaleb journal di wax ci li ñu tuddee malaise critique mel ni Amadou Ba kay fi mu ne ab cible la maanaam ku nuy yóotu di ko ootal lése ko ne nañ wax wax ji Macky Sall wàcc na Amadou Ba te ki tax mu wàcc ko du kenn ku dul Mouhamed Boun Dionne yéenekaay bi Ba tegee ne waaye ba tey ñuy bañ journal ba ne ngir loola sotti nag président Macky Sall ki farandoom a fa mbooloo mu bari bari mbooloo mu yéem Amadou Ba sax mu ne lii gisagu ko fenn ci beneen candidat yor yor bi mel ni ku naan ko xanaa dangaa gisul la coalition Diomaye président def bi ne démb la nu fa demoon def tournée waaye foo sànni mbàttu mu tak source ko ne waaye coalition Diomaye président daje nag APR yëf ya jër Anta Babacar Ngom booba jamono ma ngay diggée ne njàng meek njàngale meek l'école bi ci boppam lay supparñe Idrissa Seck moom ma toll yéenekaay bi tuddee ko opération de séduction ne candidat yépp daanaka ca la dox Les Échos gis candidat yi diggante pic ak promesse yéenekaay ba ne ñaareelu bëccëgu campagne bi yéenekaay bi ne gaayeelu ne digg nañ ko ca Déthié Fall ca kër Madiabel la nekkoon Le Témoin ne wax na ne dana fexe ba askan wi rawatina ñay yeewoo ca Saalum moom seen bopp ci wàllu ñam muy souveraineté alimentaire bun joon moom la mu digee mooy bloc républicain et loolee réew mi nee na bu nu ko falee Mamadou Lamine Diallo ma ne woon ca Fatick 24 heures ne ay usine la diggée nee na bu nu ko falee industrialisation mooy li muy njëkk a songu maam booy jaaw moom ma nga ca mbay ma Anta ne liggéeykat yala ne woon seen candidat démb lépp luy seen jafe-jafe ba nuppi dig leen ci ay saafara Thierno Alassane Sall booba jamono ma nga doon waxi mbébétam ca na bokk na li ko gën a yitteel wàññi dooley président de la république ci mim réew ministre de l'intérieur ca boobaleb yéene kaay ma ngay xamle tuddee exception sénégalaise Thiès mooy réew mi bu ñëpp yaakaaroon ne tey lay màbb lépp taxawaat réew a sax la Dakar Times di laaj ana fu mu jëm ndax njuumte yi ne conseil constitutionnel def na ko ak spolio ya dem ca cour suprême jaaxa am ci élection dana amam am itam yéeni kaay bi ne war naa laaj fu réew mi jëm ni ki génn kaso Ousmane Sonko ngeen ñu woowee détenu politique ak lépp lu ci aaju direct news naan ay bés bi ñu nekk daal bu nu mayewul ci la lépp yi wëlbatiku waral yéeni kaay bi laaj ndax wu ñu ci la semaine de tous les renversements fii ak tontu li campagne a ko waaye lu fitna gi bare bare ñi bokkoon ca yeewi askan wa moom dañoo mel ni xaatim pacte de non agression yéenekaay ba ne ñooña fitnaalante wuñ ci seen biir ki ñuy bañ a gis kay mooy Amadou Ba ñoom ñi yëpp moom la àndi xeex yéenekaay bi ne ñoom ñi bokkoon yeewi yëpp itam joxante nañ daje ñaareelu tour bu dee am na ba moom la mu doon wut ca mbàkke bés bi ne am na ko te mooy mbooloo journal bi ne mobilisation bu mucc ayib la fa def moom premier ministre a muy dalal xel yi tey wax lañu santaaneek lañu aaye muy muy règle du jeu yéene cabinet moom Matar Cissé jàmmi réew mi ordre public lépp ci moom la aju ndax moom la ñu dénk tey lépp lu aju ci wàllu biir réew mi Matar Cissé ca booba lépp journal ma ngay xam le ne la ko gën a yitteel it bokk na ci jubóole ñépp ñi sékk langue politique bi ñooña ko sékk rawatina ak ñi nekk ci campagne la tribune gis na ne desee na noo yëngu gaay yi yéene cabinet ñu ngi diggante caravane porte à porte ak séddalay flyers waaye mooy sóoboogunu ci yëf yi ña ca jota sóobu nag le quotidien ne jàppante yu metti lañ jëf démb rawatina ak farandooy APR yaak farandooy Basiru Jomaay Fay yéenekaay bi ne gannaaw parcelle Pikine démb tàngoon na jër ca booba lépp journal Matar Cissé ñaawlu lépp luy kàddu yu ñagas mbaa fitna gunuy jëf jëf ji Macky Sall mujjee jëf mooy changé gouvernement bi seppi képp ku cay nitu Amadou Ba le mooy ma ngay laaj ndax du loolaay firndeel seenu tàqalikoo bugaan moom lëngoogul ak kenn yéenekaay bi ne ba tey ma nga ca suspense waxagut kan lay jàppale ci élection présidentielle bi nu jëm élection booba Mouhamadou Makhtar Makhtar Cissé ca las ma nga naan daanu ko tëgg ci anam yu mucc ayib Amadou Ba booba jamono yéenekaay booba ne ma ngay dig Touba Mbàkke ay saafara ci jafe-jafey ndox ba nuy am Le Soleil yeggeenu lool ne Amadou Ba kay xibaar bu neex la jox démb waa Touba ak Mbàkke nee na bu faloo jafe-jafey ndox ga ñaari gox yooyee jànkoonteel dana ko saafara te saafara soosa la ñuy taxaw ñun tey ñaanal leen kendal ak jàmm dig daje ëllëg incha